asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar maa ngi ñaan mbokku taalibe yëpp sama audio bii may def ñu déglu ma ak xel ndax dafa am ñaari audio yuy daw fan yi ci dëkk bi ki ko def di sama mbokk ma bëggoon indi ay leeral jëmi ci moom ngeen xam ki ko def ku doon ki ko def. Euh, dafa dafa soqeekoo ci ñaari jur yu baax baayam du ma tudd turam ndax it baayam ku baax la doon nitu yàlla piir nekkoon nit ku amoon ku yàlla mayoon xam-xam mu ci daan dimbali doomu aadama yi ñu daan jóge fu ne ci àdduna mu leen daan faj kooku mooy baayam ndeyam it duma ko tudd ku baax la jigéen ju baax ju yaru ju sell gu dal ko koy woy juróom waaye def di alpha ba moom ñeme naa ko tudd ndax dafa def ñaari vidéo wala ñaari audio yoo lam ca wax amut benn bi mi ngi ko def ci Serigne Babacar Sy di wax ni Serigne Babacar Sy da doon Senghor ci ak ak ak euh, Mamadou Dia waaye bataay bi du woon bataay du woon Senghor ak Mamadou Dia waaye diggante Senghor la woon ak lu ak ak Lamine Gueye te it sëñ sëñ Babacar si biñ koy fal biñ koy wax ne buñ koy tànnuloo tànnuloo wuñ ko woon ab falloo wuñ ko woon imam njiitu réew lañ ko doon tànnuloo te liñ koy tànnuloo liñ ko doon tànnuloo njiitu réew it fekkoon na Senghor jiitu woon ci moom que Lamine Gueye Senghor moo njëkk a ñëw ci sëriñ Babacar balaa Lamine Gueye di ñëw te ginnaaw nag kàddoom jàpp na ko ba pare mu tulul dellu ginnaaw loolu a waral jàppale Senghor ak Lamine Gueye beneen bi bi mu def ci salaatul fatiha teg benn audio ci euh, Oustaz Hady bu bu Walfadjri mu koy mu koy di mu koy dingat man sax boobu sax nag moom mu ma gën a jaaxal man jaafoon naa ni alpha ba mii àdduna dootul gudd tànk mukk ma mu wax dara ci salaatul fatiha ndax lii yàgg na ko def du tey la commencé critiquer wala di wax safaan ci salaatul fatiha ak gisuñu mag réew du murit bi du tiijaan bi du laayeen bi du xaadir waaye defoon naa ni loolu da koy wax nii rek waaye du du luy sori waaye nag comme dem na ba nekk tim réew léegi di wax lu ko neex bëgg yàlla nag il faut que nag mu arrêté waaw Alpha Ba dama bëgg nga xam ni dama bëgg nga fàttaliku rek yow bu fekkee ne yow nit nga nga fàttaliku bis ba ñu àndee fajar ma nag yow dem julli ji jàkka ja nga ba ma ca jàkka ja ma wasifa ñëw fekk la sama buntu kër nga wax ma ni ma mbokk Euh, yaafooroon ku bëgg diine nga waaye affaire wasifa yi man am ma indi nu ma indee sama kanam nga xam ne man mii neexuma nga changé version waaye ca ngoon googu dañu am suñu beneen wóllëre bu doon takk soxna du ma tudd turam ba tey de ndax concerné gu leen mais bis bu jotee ma war leen tudd rek dina leen tudd incha allah dinaa leen tudd bu soobee yàlla ak yonent bi mbokk moomu bi mu takkee soxna ca jakka ja ñu ñaanalee ko jabar buñ koy ñaanal jabar kaka doon ñaanal ak kakay ma yëpp tar salatul fatiha nga biñu génn da nga niko ko fatiha kenn du ci tak sey ku ci tak sey doomu la way wax joju bi muy wax biñ ko di ko di rok di rok di rok bu mu egg kenn ci sey kilifa ci sey bàjjen pour être plus précis lum lo wax dafa leer nañ ma ngi taxaw ya ngi taxaw dafa na la budé ni tak sey bu ñu takkee ak salaatul fatiha say bu ñu ñaanee salaatul fatiha takkoo ko salaatul fatiha doom ju ci sosu njool doomu njaaloo kon yow doomu njaaloo tontu wax ju ñaaw ji nga wax moo taxoon mu tontu la wax ju ñaaw ji mu la tont moo taxoon mu wax mu tontu la wax tontu ji man xam naa bu wér ni kenn gënu laa selli wayjur say wayjur kenn gënu leen sell ci kaw suuf waaw loolu moom lu ma leer nañ la ay wayjur ju sell nga am waaye yow mii baaxoo lu sey way jur teg ci yow pour nga am xam-xam te nag du doo jaaxil du jaaxil de alpha ba muy du jaaxil ku xam borom xam-xam la ndax ay way juram sonn nañ ci moom ba mu am ba war ko fu ñu ko war a dugal mu jàng yëpp yóbbu nañ ko mu jàngi alfalaa lañ ko yóbbu mu dem jàngi ji fa macha allah yàlla defal na ko lam koy defal ca lam ko mu war a defal waaye orientation bañ ko ñooñu defal tabaarikàlla moom moo ko jural lii lu ko neex mu wax waaye nag maa ngi lay avertir lii nga wax ci Serigne Babacar Sy yëpp dégg naa ko kooku sama pas-pas la ki nga laal moo cher ci ñun mënoon ngaa def ay kaset ba xëy man du ma la wax dara sama newul ci yow la nga gëm-gëm ko man la ma gëm-gëm naa ko ak ki nga laal ni mu cher ci ñun tax na maa ngi lay xaar li ma yor ci yow mat na ay kaseti kaseti kaseti kaset xam nga ma ndax yow sama biir néeg nga dëkkoon man maa daraloon nga dëkk sama biir néeg yow mi dëkk sama biir nag la ma la xamal lépp xam nga ko te dara du baaxu ca yow nga daan jël yëfu jàmbur ya nga daan alalu jàmbur ya daan jaay ak yëpp a ngi sama bopp bii dara réeruma ci ña nga ko seqaloon ña nga fi maa ñoom maa ngi wax ak ñoom chaque jour li ma bëgg rek mooy sëriñ kar si waxuma sax sëriñ Babacar waaye suñu mag yi réew mii nga may leen jàmm maa ngi lay déglu nag ba nga weddi lii ma la wax lii la sa wuy juboo waxoon ne la bu dee doom bu sosoo ci jaan gu ñu mayee salaatul faatiha joomu njaalu la kon yow ca boo ko weddee rek am naa yeneen ki yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne war naa ko ndi yow laay déglu su fekkee ni weddi nga rek maa ngi ñëw sa kaw waaw ki nga laal nag moo cher ñun wala ñi nga laal ñoo cher ci ñun Oustaz Hady day sa morom Serigne Babacar Sy day sa morom. kii may wax nii may wax nii may wax kii may wax muy alfa mu ko xam bu baax sosaluma ko xam ko bu wér a wér a xam ku ay waajuram bokkoon ak moom defandoo ak moom ngune ñu nekk ndoo ñi ko xam sax dëggantaan dëkk géejawaay ci ñun niiga lañ koy wax alpha niiga parce que da doon rab jamono yu gune ko dafa bëggoon affaire rab ñu ko doon ko niiga moom xam na man xam naa te xam na ni man duma koy duma duma koy sos waaw li mu def metti ma moo tax ma defal ma defal ma def ojo bii di ko xaar mu defal beneen ojo Alpha Niga lay wax man la Hamidou Ndongo nëbbatuwuma la làqatuwuma dama bëgg nga bàyyi sa yi ngay def wasalaam